waa instant yi man Aïcha man Aïcha lan laa namm man Aïcha namu ma dara lu ma na ma toggant ko yow yaa ma gën a xam li maa wax gomoo ma wax ma rek yow mi di seetaan gomoo ma xam nga ne maa toj yax bi ah waa nag bu soma bi jotee nii dangay gis ne tubaab bi dañuy jóge seen dikka bu jógee seen dikka nag ñëw Gambie ñoom ñëw Gambie aw ñëw Afrique sax ñoom ñooy gën a fiim ki nga xam ne mooy biyoon si ak Rihanna ma dem nag fu dikka neexee fu ma romb ñu topp ma Aïcha mais kii du Aïcha Gambi may doosi nag di wone sama bopp moom la ay Aïcha la mais lii lan la ko daax lii lu koy fay wax leen ma lan moo koy fay ah xanaa xom nga waaye du ma nangu nga xom parce que boo xomee rek man ma dee parce que man a yoo far waaye gis nga bu ma duggee Sénégal damay nekk toores comme ça bu ma demee uti visa duñ ma jox man damay jàll rek dugg ferry du ma dugg avion de ferry laay dugg rek dem ci beneen dëkk bi fu dëkk neexee bu ma duggee foofu nag du ma làkk wolof damay làkk anglais damay dama sama anglais yi comprendre non li may wax dama koy waxaat nga dégg ko dama koy damm xam nga nag man du ma dugg Sénégal te demuma fii nga xam ne mooy Almadi fu yëpp di xewee xale am buzz ñi di fa jaar man Aïcha ma dugg fa xanaa xam nga bi ma fa demee nag euh, ma noos cël def suma ay affaire ba pare bu ko dem marché nag pour jënd ay cadeau pour sama rakk yi soo comme ça man dama am respect man bu mag dama koy jox cër léegi bi ma bréegee tax bi mu nekk mag nag ma jox ko cër mu taxaw ne ma doom ma ne ko papa I am going to the big market rek kooku ne ma xa doom li ngay wax xaw ma ko de man nasaraan dara laa ci xamul ma xam ne comprendre li may wax ma ne ko man ma mu ne ma ma mais Sénégal amul quartier bu tudd Macheikh de ma ne ko I mean à marché marché mu ma au oh, marché nga wax ma ne ko waa mu ne ma dugal waaye xam naa sama sama filin ak sama jagar-jagar yi ni may def rek paa bi ne kii moom borom xaalis la paa bi ne ma 10 000 bi mu ne 10 000 nag ma changé sama kanam ras sama kanam ma ne ko I don't have that that's that's very expensive after mu ne ma waa lan nga am waaye ma xam ne maa ngi def yi fi tubaab di wane sama bopp di dose rek ma ne ko can I mu ne ma dugal bi ma duggee nag si oto bi xam nga man dama teg ne man dama yeewu waaye bu ma demee Sénégal damay gis ñi ma gën a yeewu paa bi ma foog ne yaaram la comprendre nga paa bi dugg si moto mu toog rek téléphone bi sonné rek mu ne ko mais alaaj mais alaaj sama journée neex na alaaj ngi yor xale boo xam ne sama oto bi xale bi dara la déggut si wolof mais xale bi dara la déggul xale bi xoolal almadi fii la mu ne 5000 la may fay pour ma yóbbu ko si marché bi waaye xale bi dinaa jaar ci kawam jaar yoo xam ne ma ne suma el ah mais paa bi sa vrai bandi la waaye bandi bandee ndeyam ma ne pat rek ma dem ba di wàcce sa maa ngi amee 5000 waaye ma téye 5000 bi rek génnee 10000 jox ko ko ma ko joxee 10000 na taxaw di xaar suma wéccit paa bi ne ma doom ma ne ko yees papa mu ne ma yokkalaat ma ne ko ba I just gave you email mu ne ma déedéet lii xaalis senegal la lii 1000 francs la ma ne moo yéen <laughs> kaay leen àttewaat kii kii dafa bugg a jaar suma kaw waaye déglu leen maa moom ma ne ko how much should I give you again should I give you five D-mail mu ne ma xoolaat da ngay yokk cinq bi ma jox nii bi bii yokkalaat beneen beneen beneen beneen ba mu egg cinq muy cinquante mille de ma mel ne kuy ubbi sama poset rek ma gëstu ne ko papa mu ne ma naa ma ne ko jox ma sama wéccit ma dem mu ne ma ii ma ne ko bu ma ii yow temps yow man dégguma olof parce que damay dose di làkk ay anglais yi ma damati ah ngeen ma danga may bu nangu Macky Sall dégguñu gis nga man bu dee da ngay bandi bandi maa la gën bandi maa la gën a dama bandi bandi lu ba sama président Gambie Baro mu riitee ma ma daw dugg Sénégal paa bi ni ma i dégg nga li wër si oto bi yëpp ma gis nga nag olof laa la laaka bu ma la laakee sunuwaa di nga daw bàyyi fi sa moto bi xanaa xam ngeen mais Dakaaru Njaay booy dof doflu nga ne sa bopp bi dafa naaj di fi fekk ñi gën sa bopp yi gën a naaj ma de mais Dakar moo neex